léegi euh, ñu ngi del siwaat ci euh, benn ak benn asaabu Cheikh Tidiane ci njiitalu alaaji Tafsir Thiam euh, li nga xamante ni ci lañ nekkoon ñu ngi nekkoon ci lan mooy masaayid yeeg ak mawaaqif yeeg ñu demee nag noonu loolu lañ doon wax démb aywa ñu ngi ci paasu cent quatre-vingt-douze ci ñaareelu xaj bi ci daara asaabu Cheikh Tidiane ci jumaay Fann bi suma xaala wax radiyallahu anhu al ilmu xam-xam ariyaab yi boo xam ne xam-xamu tàggatu la mooy entraînement xam-xamu tàggatu yaxtaaju dafa ajoo ilaa umóori ay mbir entraînement moo xam footballeur wala leneen boo ko def dafa am façon yoo koy defee tàggatu bi dafa am ay mbir yum soxlo mooy awliya yi maanaam tarbiya yi awliya maarifatu taadilul misaaj nga xàmme niveau tempor euh, bi. bi mm-hmm. maanaa xam nga entraînement wu tàngoor. ak entraînement wu sedd. Mm-hmm. bokk war nga xam loolu eh, waaw ndaxte yaram wi lañ bañ mu tegoon loo xam ne tàngoor bu ko defee dina ko indil coono ci sedd la gën a mën a yàgg yëngatu Euh, tàmpat bu génn loolu nag boo bëgg a dugg war ngaa seet ba xam dugg xaloo jamono tàngoor day métti su ma maarifatu koy féetu saa yi gannaaw nga xam naka ngay doxee jëm ili ci moom maanaam fan laa koy jaare yoon laay jaaree pour def lii danga ko xam su ma maarifatu lu jaabi nga xam kiiraay alxaatin ba ngay dagaan coom kiiraayu maraatib yi martaba yi ak kiiraayu xaqaayiq yi ak kiiraayu yi nga xam ne kiiraay kiiraay yi kiiraay bu ne da nga war a xam bii kiiraay boo ko bëgg a dagg fii nga koy ga kiiraay bii la nga xam nga li du jaaxal de ndaxte booy tarbiya ci saay yaa ngi wér a kurus booba mooy wax nopp yi dégg waaye am na foo xam ne boo demee da ngay tëg xel mi mooy daw ah, ndax xel a mën a dagg foofu am na foo xamante ni xol bi nii ngay xamee nag waaw kiiraay bi may dagg nii ban kiiraay ah, suma maarifatu kayfiyatu sawaali yi nga xam nag naka laa koy dindi li yesi la pour ma àgg xaayatul maqsadi dayeb la ko tax a jóg waaw nan laa koy dindee ak fan laa jaar ba ma taxoon jóg mhm. moom ci tarbiya bi mooy nangam da nga xam loolu su ma maarifatu xaayatul ma xës bi nga xam nag dayoo jubluwaay xam nga la la tax a jóg boo ci àgg war nga xam ne fii mooy yemuwaay mhm. yemuwaay la la taxoon tax fii la ndax tarbiya rek nga di ne dara amul kaman laa xam ne nag awliyaa yi ak aaxiriyaa yi loolu tax xàqu la tax a jóg nag du laahu maanaam ni ko gisee kon du yow malaat yi laahoo rahmaan ak tur woo ne boo ko seetee mën na nekk am mën na nekk ñu ne kii ak du saj taxa laa jóg da ngaa war a dem nga xamante ne ah la ma taxoon jóg nag mooy ak si fii soo maarifatu usul ijaabi mu xam nag waaw kiiraay lii yiit ma yàlla cosaanam lan la allati bi nga xam ne mi naa cim la maaduha maaduhoo màccam kiiraay li yiru cosaan la bi nga xam ne mooy matière ba tax ah kiiraay bi naka tey bëgg bëgg àddina wala rëy wala soxor li waral lii lan la da nga xam loolu lii nag soo ko xamee su nga am nag farlu fi xasi tilkal usoli soo xamee nag cosaan la ko kii ndaxte jàngoro joo gis am na fu mu bàyyi ko ba muy bàyyi na ngay fexe fatt kiiraay loo gis xam nga añaan dafa am loo gis ba tax mu añaan nga loo añaan nga dem nag ba fexe cosaanu añaan cosaanu soxor cosaanu di bëgg àddina cosaanu yëpp nga dagg ko nga góor loolu góor góorlu moo su ma maarifatul umóor yi mu xam mbir yaa xam ak yaa xam bihaa ci moom la nekk sawal ijaab bi dañu kaay kiraay la mbir yi nga xam ne moo mën a dindi wékki moo mën a wékki kiraay bi xam nga kele bu ne kele bu ne lu ne am na kele boo xam ne ma koy wékki noonu nag kiraay dafa am loo xam ne kiraay bii li koy wékki kiraayal fëqale xiif fixal xiif rek xam ne daa bëgg lekk kiraayal bëgg lekk ragal xiif rek moom doo ko waaye bëgg na da nga daan lekk nga ko lekk bi kiraay natt déedéet lépp loo xamante ni kiraay rëy fexeel nga bàyyi rëy ga rek nooy rek loo gis rek am na matériel boo xamante ni moom ca koy xam nag sa wàllu ijaab yi ama kulliyatu imaam benn imaam benn nga koy dund kulliyatan tout man nga ko dund complètement aw tafsir wala nga dindi par par par pièce par pièce di ko détaillé di ko dindi par tànk di ko détaillé soo amee doole dindi ko complètement rek buddi sànni fële soo ko mënoon nga di ko dagg par ren di ko dagg par ren mooy tafsiran ah su ko defee nag su defee loolu suma salla mo rocc nag sayful asmi jaas yi dogu xam nga dogu la ñu tuddee jaas yi boo déggee dogu rek nga daa rocc nag jaas yi dogu da ngay dogu de ko amul dogu téeg yàlla bi dafa def ak lan waru ko boo jawaadil mu nga war naaru góoru góor góorlu xam nga kon gis nga lu ne def koo abal sa dog yi mooy sa jas sa góor góorlu bi ah, mooy sa naaru góorlu noo koy defee noo koy defee nag bi mutaabati ma mu xam topp lépp loo xamante ni xarafa xam na ko min haasil yi ci mbir yépp lu mu ca xam na ko topp par benn par benn par benn mbir ah waa lii nag sëriñ boo xam ne traversé lii mën na laa xëy dugal ci lii bu sotti il faut nag yii moom médecine la minasik umoor wala amali ak nga jëf nag ala a lam laaj lu nekk dafa am lu laaj na ko defee noonu ah léegi nag comme moo la waxoon nag da ngay xam nag euh, na tollee niveau tàngoor yi walla sedd yi mu ne wa ama maarifa tadil misaaj misaaj nag nga xam nan ngay néewatee jaxase mm-hmm. euh, yif yif yi maanaam lu ne dosage maanaam boo nga xam dosage bi nga xam nga xam nan ngay yemalee dosage bi foo mm-hmm. mënu soomo tariqatil intidaali mm-hmm. mooy da toog da takkoo yoonu yemale maanaam yem-yem fit ak ci ngay seet lekk bu yem nga xam nag maanaam kon nag niveau bi ma war a lekk lan laa war a lekk bi maanaa naan la war a toll wasaraa bi ak naan na foofu ngay jàll nag seet nag néew bi ci yépp ndaxte lekk ba suur baaxul ba ba regg ba goyet baaxul loolu ba tey ci xam néew bi nga xam ne moom laa war a lekk léegi ak naan min xayri ifraatin ci lu dul ëppal nag wala tafrit bu mu sàggan nag bu ëppal ci lu ci dem de xiifal ba ak régal ak ah, régal ba na ko def lu yem su ma nasar ma xool nag fi waxtu si waxtu na xool nag heure bi waxtu bi ma nekk nii jamono dëkk bi ma nekk wal balad yi ak dëkk ba mu xool ko xaraarataan ci tàngoor woo buroo de tan wala seetlu na seet na jamono yoo xam ne ci la nekk ci liggéey bi na seet heure bi ndax liggéey tarbiya ci nawet ak noor bokkul euh, lekk yi nga xam ne nga lekk ci jamonoy tàngoor ak jamonoy sedd bokkul kon na seet nag waxtu wa ak dëkk ba ci tàngoor wa ala sedd ba waru toobatan ak tooy wuyu bootul ak wow waru mooy jamono ñaq xam nga tàngoor ak ñaq bokk ngay seen nag ñaq jamono bi yoo nekk ah li tooyal yaram yi ak liy wool yaram ndax bu dikkee jamono liw yaram da yow bu nekkee jamono yi nga xamante ni mooy ah, eh, ñu ne nawet baa dugg si ngay gis ñu ñaq na boo ko saalika naka noonu noonu asab ko ñu ngay jiitalee suma muqaabalatu kulli ma nga dénkale lépp loo xam ne ah yi daf koy dëgëral kenn koo ci seet la nga seet ne tàngoor la nga seet lu la mën a jàppale ci tàngoor seet la nga seet lu la mën a jàppale seet la mooy nga def muqaabala kulluma yu kaw yi xal infiraas yi ba nga xam dëng bi maanaam fa mu war a tegee fa lay tegu waaye bu jaar dugul loolu loolu moom mooy xam nan ngay defee ñëwate yi ci lekk ci naan ci sedd ci jamono ak yooyu loolu fu ngay xamale ñëwate waa amal xasdu la ko jub nag ba ngay tarbiya lay jubli foofu daful ijaab yi mooy ngay teggi kiiraay la kiir xanilul ci ru rabban yi ru rabban yi kiiraay la ko yit tegg ko moo la tax ngay tarbiya loolu mooy xam la tax a jóg lii la tax a jóg xam nga dañu dem ci yàlla déedéet dafa am lu la tere dem ci yàlla loola ngay fexe mu dañ nag mm-hmm. waaye bul jox leen dem ci yàlla kon nag nag xam nag yaa xamante ni mooy la ko tax a jóg oo moom rabbul ijaab yi amido yi arabani mm-hmm. war a doxoo ak delloo ba mm-hmm. ilaa xaalati safaay jëm ci temps am setam ba alati yaa xam ne nekk na xale ca moom xawee tarkib njëkk ñu ko teg naan fi jësi ci yaram roowu nan nekkoon ci cosaan bañ koy laata teglaan teg yaram dafa seetoon wécc ah ba léegi ba day wax borom iyaaka boo déggee faatee dafa mel ne pays boobu lay ah, léegi nag doo nag bi mu ci këraay yaram bii nag mënatul wax mënatul gis lu mu gis lu ko tax takk takk yi takk ko léegi na taq taq yi taqroo gi moom bay fexe mo dañ ndaxte ba muy dikk ci yaram yi dafa seran wet ci dafa seran wet fay na xaa saa naq lolu koo moom alisi mooy loo xam ne yàkkul nekk mu coob idraakul saa il ulo mi ci lii nag nga mën a jotee mboolem xam-xam yi biti wal ma aarifi ak xam-xam ak rañ yi fii nga ko mën a amee wal ahwaal yi ak xaal yi xam-xam boo ci xaal ko jëlee wal axlaaq yi ak jikko yi wal maqaamaat yi ak taxawaay yi ndaxte xam na ne xarit taxawaayu teem ak taxawaayu soom taxawaay ba a xàmmee bu ci rat wécc nag ci lay jëlee yi ci la xam xaal bi nekk ak jikko yi ak taxawaay wal futaat ak fot wal mawaay bi ak may yi wal qurb ak jege ne jege dëgg dëgg dëgg ko mën a amee ne taa yoo xamante ruuxu seet na wecc wa bi ci moom la nekk nag idraaku saadati dunya jot texe àddina ko mën a amee nag ah waman faqadoo ku ñàkk lii mooy kiiraayu ruux gi boo ko ñàkkee dañu lam yesul du àgg illa saat akrati jëm texe akra texe alaxira bu lii amul mun a am texe alaxira il faut que bi nga xam di ko ne takk tey da koo raxas ba mu set wécc wécc wécc wécc ba mu set wécc nag te bul ko taxalaat bi boo ko setalee bul ko taxalaat bi maanaam la taxoon ah, gisuloo taayu del saa rek nga yëraat yàlla yàlla sa nopp loolu nag te mooy musiba nga xamante ni saar bi ba pare xamee ji koy mooy jóg wala sax boo ko seetee moo gën a garaaw mooy jóg lii nag il faut nga xam kon ne ah kon ndeke la taxoon may tër bi yëpp du ci yàlla si man la euh, roo gi nga ne dafa setoon wécc roo googu laay fexe mu taxa su ko defee nga mën a def si liggéey nag loolu nag taa yoo ko defee rek da mën a jot nag ma xam-xam yu dul jeex roowu moom daan tax tax jotul xam-xam lu muy lii rek kon nag waxal naa la ñaar nan ngay defee xam na niveau bi ak nan ngay la tax a jóg ci tarbiya mooy dindi kiraay yi kiraay yi ruuxu moo ma tax a jóg néew na koo tarbiya moom daa bëgg a xam yàlla déet yow kay la tax ngay tarbiya yiiraay yi la yiir yàlla ngay dindi pour mën a dem waa ma marifatu kayfiyatu sa ay nag nga xam ne nan lay jëmee ili jëm ci moom waa man yoon li ma bë- yoon li ma li li fi ma bëgg a dem fa ban yoon lay jaar pour dem ci mi ngi wax ne lu am solo de ah? ban yoon lay jaar pour fa ma jëm ma àgg fa loolu war na ko xam ñu ne waaw Cheikh yoon wi ñu war a xam jaar ca pour dem ci loolu mu ne foofu mu day du dara mu taabat rasoli da ngay topp ndaw la rek fii saa yi ah, di nga xaw lii ci mbooleem waxanam bàyyi sa wax waxin nga jël waxin wa fii lii jëfam bàyyi sa jëfin nga doon jëfee nga jëf jëfin yoon ci waxaali yi doxalinam bàyyi sa doxalin wa nga di ko doxalinam wa xuluqi jikkoom nga bàyyi sa jikko ji jikk ci jikkoom noo koy defee nag bi iqaamati uquuqi laay nga joxe wari gari yàlla lim laaj xasan noo jëla lii day mooy yoon nga mën a jaar moo tax da koy dégg de waxu ne eh, topp sopp leen ma topp leen ma la wax waaye bëgg bàyyi bëgg bëgg sëriñ bi rek mu am solo la bëgg ci kii bi <laughs> dafa yomb de dii topp lay doon uh-huh. waaw kon nag boo bëgg a xam nan ngay yoon nga war a jaar pour roo gi setaat mooy nii ngay topp yonent bi rek xam na ne boo koy topp rek roo gi moom bu dikkee ci kër baayam rek mooy xar mooy cosaanam ndaxte rowul àq bi moom foofu moom ci la bàyyi ko taa yu del saat damay seet dama si taw kon ne yoon waa ngay jaar nag ngay puus de puus topp yonent bi dara mm-hmm. kon nag bi nga xamante ni ñun dikk nañ ci daayira suy laayee daf ñu yombalal ba bay dikk ci daayatu xilaaf mu gën a yombalaat na ñun nag ñu dikk nag bay seet nag buntu yombal yooyu ñu ne ko ko ñukk nag dem nag seet nag kër yi nga xam ne moom xamuñ ci yàlla dara ñu jaar seen jaaruwaay ya da wax seen waxin ya mu yàq nga li ma la wax lu ma lu ma la yàq wax da nga dox ba gis ko boo de ba de bàyyi wax na ko dem dégg nga dem dégg nga dem ci ci biir man araada ak yàq na ma ay ku bëgg fal yastub tariqi fil aqwaali wal afaali na jaar fu ma jaar man man man Ibrahima ci waxin ak jëfin boo indi waxi bàyyi ci biir pays bi wax ji bees bul fi indi jëfin bu bees naan ndege maam faydu saa lu ma xamul déet yooyu am fi taa yoo ko defee rek sa bunt fàtt mooy lan ni ñu tey tey kenn ku ne andi nga sa méthode boo xam ne moom ngay jëf ak say taale ba léegi sooy def rek. ñu ñu xam ne sëñ bi boo xëyee ñun dañ ko war a ta euh, bi maanaam aw ko xam nga euh, <laughs> daayira kat buy bu wéyte bu wéy dañ ko war a ta ta baaru déedéet léegi danga war a xam nag ci ngay jaar na yonente ba doon waxee nam doon defee xaal ba mu ko doon jaare jikko jëm yoroon way na kalaa la xoloqin asim bii xaamati o qooqilaayi asoo jëlla siran moo xam ci secret sa biit defal si suru sa xel sa xol sa nëttu la yonent bi jaaroon ci biir bi rek nga jaare ci bopp ñu ne waaw léegi su fekkee ni maa ngi ko bëggoon doxal tey man ñi koy ci la waxe tey nan ci siru mu ne kon demal ahad ba nga demee ne ahad ndong dangaa dikk jaar ci ahadiya nga xool luy aadee muy wéetaay kon wéet ba nga wéetaloo doo amati wéetal nga dikk ci Muhammad ya nga seet jikko ji nga xam ne mooy jikkoy cant ga nga jaar fam jaar ci cant ga na mel rek bu ca tekki kon jaar nga ci biir nga dikk ca eh, eh, xilaaf ci eh, wilaaya nga dikk nag ahmad yëpp nam doon jëfee ca cant ga bay jëmi cant ga nga fexee defee noonu nga dik ci khilafat nam nango nak lepp lo xamne moy nafsum lim nango won la yalla nango ak la wilaya ba yonent ba nango la wilaya ba nango mu dikk ak nangu ni nango ni soko nango kon kon nangu ci tural ba nga dikkee ci bis nga gis ni jëfandikoo sareet nga jëfandikoo na jëfandikoo sareet kon kat loolu moy jëfandikoo mbir ni siran wa do do do do do do do do do do do do do do do do do na setal ixlaas nag te yàlla tax muxlisan lillaahi na setal la muy setal te yàllaa tax yow lu tax ngay tarbiya nga ne yàlla rek laa bëgg man daal man daal dimension tilim laa bëgg mu set mhm. wa idlaalan ak ngandeel lillaay bi ma ah, eh, min jami taw sawaabi kon dama dama dama jël muxlis lillaay min jami sawaabi mhm. bu fekk ci mboolem yiy jaxase adduna yi tooxale jaxase du adduna la wal uxra yu ak jaxase alaxira jaxase yu yëpp bu mu jaxasoo ci sa ah li ngay def luy lan yaa ngay jaamu yàlla ci biti pour bëgg ca dara dara bëgg ci bakkan bëgg ci weexal bëgg ci nangam loolu bu mu dugg sa jaamu yàlla loolu tax ngay julli yàlla rek lu tax ngay sikkar yàlla rek lu tax ngay naan ak yàlla rek uxrawiya mooy lan bëgg àjjana ragal safara mooy ndur àllaaxira boobu la tax ngay tarbiya de lu tax ngay tarbiya ah, man daal yàlla laa bëgg xanaa ngaa ragal safara ma ne man yàlla rek laa ragal waxuma nga ko nag da koy pratiquer kon nag jaxase yooyu na fekk eh, maaw ñun bu jàngu jaay maan est-ce que fu ñuy xamee yoonu sellal bi dara doo ko fa def moo tax daal dëgg-dëgg yàlla man daal jiit laa sax ci li ma gis fi ma nekk fi ma gis fi ma gis foo nekk dafa jot ci ni ni ñu jël ah, ubbi li wax bu fekkee ne mën na nekk saaru stage xam nga ñun lu yàq suñu di suñu dina ji amul entraîneur amul stage <laughs> amul examen amul examen ku mu neex rek dikki ren ma rek daa dikki jëkk jàll <clears throat> moo yàq diini ji moo yàq tariq yi moo yàq fay bi kon nag da ngay fexe nag moo ko def seen laay min jëmee sawa ibi adduna yi toog ak rëdd waa ñaa ko nekk asaalekulu saalekulu lépp li mu def yooyu nag muy def yëpp nag na ko def taasiman ndax fonk wa illaa lan ak ndax màggal li lay ñeel yàlla taala na xaalaa bisaatiri daa mu koy def nag ci laltu boo xam ne mooy loo yàlla la muy def yëpp fonk yàlla màggal yàlla gërëmloo yàlla wa taslim ak nga jébal sa bopp yàlla wa tafwid nga féetale sa yëf yàlla taslim mooy sa jëm yëpp jox ko yàlla tafwid mooy sa jëfin yëpp dogal yi dogal yi moo ko yore wal itimaadi am nga sukkandikoo ala ci yàlla taala fi kulli lépp looy mën a def nga sukkandiku ci àlla war jooy ak dellu ili jëm ci yàlla fi kul seen lépp loo xam ne ko def rek mhm. nga defee ko ci loolu sukkandiku ci yàlla dellu ci yàlla mhm. ak loo ma def rek nga sukkandiku man yàlla daal lay sukkandiku mhm. doo ci làmmiñ da koy jëfandikoo loolu mooy xam nan ngay doxee dox ja foo jaar ba dem ba mën a ruuxu ko sitaat buntu baa nga moom fi ngay jaar boroo gën sitaat nam taqoon mu set ci weer ci waaw ma maarifat li jaab nag nga xam kiiraay alxaatin bi yàqale ma nga war dagg wala boog bi la dagg xaalil mat loolu ba ba na tax la nga doon jotoo ci kiiraay yi li la dagg ba tax la nga bëggoon jotoo ci kaay ma xolo kiiraay li jaar diggante jaam ba tax dagg na jaam bi ak diggante borom war ngaa xam kiiraay la waaw li jaar jaar sama diggante sama borom lan la ah, nag boo moom xarxuroo yi mooy labaroo gi bi bari utoos yi ci géej ak cër yi war saawaate ak bànneex loolu moo tax roo gii nga xam ne moom moo waroon dem mu lab ci géej gi nga xam ne mooy géej cëru bakkan ak neexu bakkan bu ca rooga labe rek lab boobu moo la dakk mooy kiraay li nga xam ne moo tax doo jot ci yàlla te kat gis nga roo roo bi ndikkee ci naftu de roo mooy naftu léegi ndax naf soo ko colonisé bu ko colonisé rek tudd tuddoo léegi ko defee nag mu ne ko ay acca gis nga lëcca du ne wax ruu ruu waliyu ak ruu woyu ñoom ñëpp ñoo em gis nga woyu lam bëgg yëpp moo loolu yi bëgg muy àddina muy ah bu dee bu dee jigéen na soxla borom kër na soxla jabar soxla jigéen soxla nangam soxla nangam soxla yooyu ñoo ci yem képp képp wayu ak waliyu moo tax man waliyu laa tax lu ma neex jigéen jigéen déedéet man waliyu laa tax man daa nga busum busum déedéet laa taqraboo bul jege bul jege bul jege bul rek la <laughs> ah. ah. bul jege lañ la wax <laughs> boo jege lañ la wax de laal boo ko defee ëpp na. laal laal kay looñu lépp moom boo àggee ci mënuma ko bañ a laal moom xay jikko moom kon nag ah loolu moom lu ma moo tax man wax ma ko laal jege lañ la wax doo gi labee ci géeju xusuus naf si woo sawaat woo taas yi mi naf si ak nit fonk boppam man danga ma am ibee eh, man man nangam nangam ah woo say ak muy fii jël bi masaaliha toppatoo lu koy arrangé ruu ji lu ko arrangé rek lay toppatoo lu neex rek waaw waaw yow lii ah de damay tool lu lu kii ma mbokk ak lan ah wada fi lu koy lor moo tax ñu takk gàllaaj ak ñu takk ak lam lam lam ñu takk lam lam yooyu wiñ gu ñuul xam nga ñu wari ko gis ñu ngi takk wiñ ñuul dafa am boo demee sama yaay moo wax wala sama nangam <laughs> dégg nga gis nga moo tax gis nga boo gisee saytaane saytaay saytaane bu la gisee lu xam ne lislaam daf la ko tere bu fexee ba nga takk ko rek am na ci yoon waaw bul bul takk la mu xaalis bul takk la mu or bul takk da nga ma am yéen bul takk kànja yëpp yow nga ne man nag sama yaay wala sama mbaay wala kii sarax la nga takk mu ne waaw am na yoon ci yow rek kay ah yow yaa bëgg nga muccee ci weñ gu ñuul nga tax moo tax boo lay musal kon xam nga gën nga ko du yàlla lii nag ngay dem ah da ngay fexe bëgg ah lii mooy kiiraay nag kiiraay la la yéer ba dagg la mooy yooyu kon nag cëru bakkan bànneex fonk sa bopp toppatoo loolu la arrangé daw loo xam ne dafay law lii mooy cëru bakkan ndaxte daw boo gisee boo gisee nit ñi dem dañu wuti gaa wuti gàllaay dañ jàpp ne gàllaaj gi soo ko takkee da nga mucc moo lay indi mooy dem ba léegi nag bëgg gàllaaj boobu noonu am na ñoo xamante ni dem na tey suñ génnoon seen téere ba fa téere bañ doon takk takkuñ ko ah may may may may ma ñëw may xaaral ma ñëw xaaral ma ñëw dem dem faat am loo faat te te am na ndomba koo xam ne boo koy takk doo taxaw de da ngay toog <laughs> yéen yëpp <laughs> waaw <clears throat> am na saa su nga dem saafara saafara boo xam ne booy def karkaram ngay ñi karaay doo ko def loxo yi doo ko def tànk yi <laughs> yëpp yëpp ngay dem ba gët gis nga yooyu boo ci xasi dugg sa sa bakkan bi day jàpp ne yéen tey ma dee de <laughs> waaw loolu yëpp nag <clears throat> ci liy yéen bakkan laa walaay ah walaay dëgg-dëgg yàlla ma ne hmm. ah dëgg-dëgg si yàlla mooy bëri waaye suñ njàng bii suñ njàng bii mbër <laughs> ah fii pour nga dem ba dagg kiiraay yi bokkaale du amal ci dara dara waaye ñun dañ defee ne man ngaa nekk ci kër baay sangoo dee nga maam fi ne mboolu daanaka boo seetoo ñëpp cangaay cangaay li nga maam njaqali njaqali seetal am na ñoo xam boo demee seen néeg seen cëroo nañ ñetti njaq njaq lu nekk dañ samp balaa ngay génn waaw loolu yëpp ñu fi nekkee waaw cumikaay soo sotal cumikaay mbëri na <laughs> fukki bouteille ñaar fukki bouteille bu ko ne mën a xuj xuj taf taf xuj xuj taf nga defee ne yow laal nga bouteille yi tey ñu la nga laal bouteille i ëllëg kon daan bi nekku ci bouteille yi <laughs> lii yëpp ah yelantoon nit ñi xam nag wallaay ah gars yi nag ñu ci paasu cent quatre vingt ku bëgg a xam nag li si leen wax avec cent quatre-vingt-treize waaw léegi nag Cheikh waxal nañu kiiraay yi liy tax róor gi dakk léegi nag buñ ko bëgg a dindi niñ koy dindee solution lañ bëgg solution bi solution ci nga lii mooy lii moo am solo solution bi ñuy jaar pour mën a dindi loolu ñu koy def damaa bëgg na nit ñi buñ leen waxalee solution nañ ko jëfandikoo buñ dem rek nga ah, man ca damay topp na ma sama se déedéet ama topp sa sëriñ xamaroon xamul ci dara mm-hmm. waaw maa rifatu kayfiyatu sawal ijaab naka tamit nan la ñuy dindee kiiraay la kaay moo xam la ko ba yow asayu mooy nga dox fi xati usoosi nga coupé cëri bakkan ya wasaawaati ak bànneex xam nga la taxoon ah feebar nga opéré ko bi maanaam feebar roohu bëgg cëru àddina daggal cëru bakkan cëru bakkan cër boobu sànni neex neex daggal sànni xam nga koor bii boo gisee ñu indi ramadan ramadan loolu dafa dikk ci entraînement la bokk ah entraînement wu sa réew wa tërki taasi mi na sii na bàyyi ni bonkee boppam man ebe man du ma man du moroomu gaa yi man nangam nangam na bàyyi loola jàppale nit la ko rek gënu kenn waaye boo jàppee ne gën nii doo dem de baal ne maa ma gënuma kenn waxate sax yi fi jël bi masaliya na nga doon xëyee di toppatoo lu arrangé bakkan bi bàyyi ko dégg nga maam ah, naan lii damay def lii ndax bu ma loolu damay def lii ndax bu ma def nangam na ko bàyyi fi jal bi masaliha waqati madaliha bi suudi ñu ne ko waaw cheikh lii buñ ko bëgg a def ni ñu ko defee mooy bi suudi dafay dëddu fiha ca bakkar jooyu cëri bakkar bi kul léppam nag lépp luy cër ba xat bi nga cër boobu moo tax mënta mu kiraayam dëgg dafay wan gannaaw cër bi bi maanaam daf koy xeeb ah laajte waay nag gannaaw bakkan bi tàmm na ko bul ko forcer tey tey mu jeex xam nga jàngoro buñ ko bëgg a opéré dañ koy wàññi ndànk da ko wàññi ba mu tuuti kon nag itam soo bëgg a faj bakkan bi cër yi ak bànneex yi ak nam fonkat boppam na ko def nag laajte mbiri fi wala fi ak ñeneen na ko jàppal ndànk de ko dibil ndànk ba mu ñeneen ba mu sànq ko la ne korosé génn ko noonu nga koy defee waaye tey tey nga dee tey loolu bul ko defee ah kon nag lii lañ wax ne moom ngay defal eh, li nga xamante ni mooy kii kon ñu ah, taw foofu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu